ñëwee dafay yokk les pouvoirs même du premier ministre. exactement. que c'est-à-dire que euh, suñu président bi am na une intelligence politique des relation hmm. yoo xam ne euh, ak li ngay li am yëpp ak li ngay gis yëpp da ngay gis mu koy dëkkandu. Hmm. ça aussi c'est ça c'est très important aussi cette espèce de capacité. Hmm. Euh, ak wax ji nga koy nga koy dëkkandu donc raison de plus puisque moom waxoon na ni. Mhm. day jox plus de pouvoir au premier ministre loolu moo tax ma loolu tax ma ne il faut reconfigurer. Mhm. et reconfigurer moo tax tey il faut ñu waxtaan sur les institutions. Mhm. il faut ñu xool naka la ñuy amee suñu institution yoo xam ne democratique yoo xam ne ñun ñoo koy tabax defaraat ko décoloniser ko. parce que ñu ngi dund ci ère yi de mm-hmm. waaw bi nga xamee ne le présidentialisme c'est né en cinquante huit. Mm-hmm. waaw ak te présidentialisme bi tey ni mu feebaree euh, fee di France noonu la commencé di feebare fii Afrique de l'Ouest ak africain yi koy jëlee yëpp. Mm-hmm. kooku tam foog ñu jàng ko parce que France tey boo demee ñu ngi wax tamit seen waxu démocratie seen waxu pathologie de la démocratie. te pathologie bu amee. day am ñoo xam ne am nañu dañ naan am nañ garab bi mm-hmm. <laughs> am nañ garab bi te boo xoolee pathologie dans le monde entier nga seetaan nga jël Trump populiste mm-hmm. <laughs> boo jëlee Trump populiste populiste yi dañu am frontière ñun ak ñële Trump mooy ñun ñu weex ñi mm-hmm. ak ñu ñuul ñi c'est très raciste soo jëlee ñoom Marine Le Pen ñun ak étranger yi dañ koy teg fii. soo jëlee les gens de la gauche ñoom tamit dañuy teg seen frontière. oligarchie bi ak ñun. waaw ñun nan lañuy def ba nga xam ne dañuy réer ñoom loolu lañ koy faje waaw te populiste yi tam sooy seet seen idéologie day am diine. boo jëlee Trump si diine bi lay ci diine bi lay fëgg nga jël Bolsonaro. Mhm. ci diine bi lay tëbb. mais boo jëlee même suñu Ousmane Sonko bi dafay dem ba mu yàgg ne yonent bi. te boo xoolee imaam yi fa lañ ne. ça veut dire que il faut ñu xool. nag nan lañ koy reconfigurer je par rapport ak suñu suñu suñu réalité yi. ñu xool nan la ñuy tabaxewaat suñu démocratie. parce que euh, war a ñu def li nga xam ne moom la ñële di def. mais ñun war nañu inventer par rapport ak suñu réalité nan la ñuy def pour éviter li nga xam ne moom mooy am mooy li am. Mhm. Euh, AOS. oui waaw. Ah. Mhm. am aussi CEDEAO CEDEAO màggat na foog ci xool ko. Mhm. <laughs> dinañ si ñëw léegi mhm. voilà. <laughs> d' accord d' accord euh, président Alioune Tine mbokk yi je rappelle moom la ñu dalal tey président euh, Afrikajom Center di think tank boo xam ne dafay def réflexion intellectuelle sur beaucoup de ci sujets yu bëree bëree bëri euh, fii la ñu ñëw tey pour waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi président ñu évoluer tuuti jëm ci institution yi wax nga ko léegi mais gis nga crise bi nga xam ne am na entre l' ak ak le législatif mu mel ne. yéen tàmbalee woon ngeen di ci dox ay tànku jàmm. Uh-huh. Euh, par rapport ak déclaration de politique général bi fan ngeen toll ci loolu. écoute ñun dox nañ ci. Hmm. dëgg dëgg neex yàlla ak suñu comité bi. Hmm. Euh, donc euh, dox nañ ci bu baax dañu dañoo ak majorité bi. Hmm. waxtaan ak ñoom. c'était pas médiatiser nag lu tax. c'est am na yoo xam ne boo koy dox xam nga man léeg-léeg souvent dañ ma naan boo koy dox doo ko médiatiser. léeg-léeg boo ko médiatiser day yàqu. <laughs> d'accord voilà su fii dox nañ lu bëri te doo ñu dégg ñu médiatiser ko. Hmm. soo déggee ñu médiatiser rek xam nga ñu mën a noo eh Alioune Tindey bi mu demee ci affaire Sonko beeg kii di nekk di wax rek di mbel meli mais dañu ne nañ wax. dañu bi ngeen jógee fii bi ñu d'accordé. dañu ne Alioune boo nga jógee yow nga wax Atepa nga wax mais bi ñu waxee gis nga coow li lu mu andi. Hmm. mais pour man toujours quand même yàgg naa def lii. Mhm. tey yàgg naa ko ci du ma ko def du fii sax. tout à fait mais woo fii ba njamee naa ni ma àll mhm. nga jàpp dem fii ba beneen ñi ni ma demal ma dem seeti. Mhm. sollicité nañ ma sax Togo. waaw euh, ancien ministre lañ ma indil ba fii ba sama kër ni ma kaay diglu ma lu nekk. waaw man maa ànd ak société civile yi donc. Euh, am na une expertise avérée boo xam ne am na fii am nañ ko. Mhm. vraiment maa ngi sant ñu ngi sant yàlla bu baax au Sénégal. Mhm. parce que ñun ak ñu ko doon <coughs> pardon. Mhm. ak ñoom euh, mu njaay ngi woon ci biir ak euh, Abdoulaye Fofana Seck. ak mi euh, de Ndiaye Alain. Babacar Gueye voilà ak am na suñu xarit yi ah, ñoom. le commissaire Tall ñoom ñëpp. ci suñu mhm. biir la la la la ñu bokk. Mhm. Euh, donc. daje ngeen ak ñaari parti yëpp. daje nañoo ñoom su kii waa APR. Mhm. daje nañoo Benno nañ ko wax Benno. daje nañoo euh, aussi euh, waa PASTEF ak seen groupe bi. ñoom ñëpp daje nañoo ñoom. daje nañoo aussi indépendant yi. Euh, et wax nañu aussi ak li nga xam ne aussi ñooy waa PDS te liñ proposé woon. Mhm. franchement moom lañ gis ñu def ko c'est vrai yéen nga xam ne yéen a nekk les différents groupes. Mhm. waxtaan leen seen biir ngeen régler problème mu lii nga xam ne mooy euh, règlement intérieur bi. Mhm. waaw bi ma déggee euh, Ayib Daffé ni daje nag kii ñu ngi waxtaan ak Thiam. si ah kon nag ba ma gisee na fi satu Diallo aussi def affaire bi. ma ni bon. c'est sur les rails. waaw ah, yaakaar naa ne dëgg-dëgg ñoom dinañ def règlement intérieur bi. et kii di Ousmane Sonko premier ministre daal di dem. Mhm. def déclaration de politique générale am. Mhm. jàmm ni ñooy. jamono ñooy yaakaar naa ne dina am solution ci sama gis-gis. donc yéen li ngeen proposé woon mën nañ jàpp ni moom la ñu appliqué. waaw kay vraiment dañ leen waxtaanoon. Mm. proposé leen ko vraiment ci weekend bële yëpp dañ ko dañu ngi ñu ngi ci doon dox. Mm-hmm. waaw li ñu leen proposé dafa mel ni vraiment loolu la ñu accepté tey. d'accord c'est mm-hmm. euh, président naka nga gisee lu di mel aussi le fait lu amee solo ni règlement intérieur assemblée nationale ñu ne ay nit ñoo ko modifié boo xam ne assemblée ngi ci aussi. xam nga mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour yu mel ni bañ a amati. c'est plus grave que ça. Hmm. c'est plus grave li grave mooy dañu amoon un système hyper présidentiel ba pare institution yëpp lañ informalisé. Hmm. chaque euh, ni assemblée nationale di doxe ba tey dafa archaïque ñun ñi dañuy fàtte encore euh, que député yi nga xam ne ñoom la ñu waroon am assemblée nationale ñu ne titulaire. Mm-hmm. bi ñu defee affaire yu parrainage yi. Mm-hmm. ñoom bokkuñu. ñeneen suppléants yi ñoo ñëw. Mm-hmm. te boo xoolee quand suñu assemblée nationale bii ni mu doxee ak ak euh, scandale yi fa am ak liñ gis mooy peut-être assemblée nationale boo xam ne moo moo ñu gën a teg gàcce. <laughs> waaw te sincèrement Sénégal dañu am ñun ñu xarañ. ñoo xam ni léeg-léeg même bu ñu nekkee ci parti politique léeg-léeg dañuy wax dëgg seen expertise mooy génn ñi mhm. ñu leen di déglu ku mel ni duduwaat Wade mhm. mel ni Doudou ak ñeneen ak ñeneen Sénégal du xarañte moo manqué mhm. donc euh, li ñu war a def mooy fexe ba nga xam ne xam nga euh, démocratie ak république li koy tabax benn mooy yoon mais aussi ñu am capacité am diversité démocratique. Mhm. ñu mun ensemble lii nga xam ne moo am solo muy volonté général bi nga xam ne mooy la loolu Sénégal bëgg ak li ñuy wax intérêt commun. Mhm. ñu koy sàmm. foofu la problème bi nekk. mais su fekkee ne dangay dem nga ni sama parti lay sàmm intérêt mhm. foofu la problème yi di ñëw te problème yu bëri yu ñu am par parloo moo ko andi. waaw ay crise artificielle la ñuy am par parloo moo koy andi te loolu nag lañu war a fexe ba nga xam ne day wàññeeku te loolu tam pour mu wàññeeku il faut ñu former citoyens yi il faut parti politique yi former seen militants yi formation amatul mhm. da gis nga ñëw nga jël nguur gi nga am ay ay ay kii yoo xam ne dëgg-dëgg boo déggee ñuy wax mhm. da ngay tiit bu te tey ku mu neex nga jël micro wax mhm. bu ñu nekkee ci situation boo xam ne ñit ñi amuñu formation te léegi ay mer la ñuy doxee te xam nga aussi populisme loolu koy andi am. Ah. Mhm. c'est communauté de colère. seen une communauté de haine. c'est une communauté d'impatience dañuy changer mu gaaw. Mhm. àdduna bi yëpp loolooy indi indi populisme yi donc il faut ñu xoolaat suñu société bi xoolaat suñu démocratie xoolaat suñu institution xoolaat suñu doxalin xoolaat suñu éducation xoolaat suñu formation. formation bi c'est fondamental je pense que tey le parti politique yi war a gën a am des mécanismes de formation pour former seen nit ñi mm-hmm. waaw am na solo parce que réew yi avancé am discipline éducation mooy tax ñu avancé dama lay jëlal ñaar mm-hmm. jëlal jëlal jëlal jëlal Suisse mm-hmm. jëlal Inde <laughs> Inde du mu avancé tey boo foo soxla informatique ci àdduna bi indien ngay indi ko mu ñëw te loolu yëpp mun nañ ko am. Mhm. ñun sax boo gisee ñu xaw a tane ci sous région bi c'est parce que suñu système éducatif sax peut-être moo ci tane. Mhm. donc nañ ko yokk éducation am na solo formation am na solo j'ai l'impression que source bi nga xam ne moo gën a parti socialist ni ah am na situation bu bees ak légitimité bu bees bu am sénégalais yi tànn ko kon nag nañ leen accompagner. Mhm. amul woon problème bi ñu demee ba nga xam ne aussi. 2012 euh, am na. Ablaye Wade dafa ne jàppale leen leen. Mhm. waaw yaakaar naa tradition boobu il faut ñu continuer ko. Mhm. te ñëpp yaakaaroon nañ ni moom lay doon ñu continuer ko. léegi nag xam nga dafa am comme ma wax la dafa am ay impatience. Mhm. <laughs> impatience yi da koy gis sax boo buggee wax sax lu raisonnable gars yi dal sa ko attaqué la. waaw Alioune léegi yow da ngay dem retraite man leen tey fi ngeen may bàyyi de man la retraite c'est la tombe. <laughs> Ah waaw waaw. gars la bëgg a yóbbu retraite. ba ñu bés bu nañu ne ma demal retraite man leen la retraite c'est la tombe pour man. waaw kooku moom mooy sama xalaat. <laughs> waaw donc. Hmm. Euh, il faut ñu ñu ñu ñu former waat nit ñi. et puis amaat suñu élégance républicaine yi nga xam ne mooy sàmm suñu démocratie sàmm suñu jàmm sàmm suñu stabilité. Hmm. boo nekkee leader politique. franchement ngay sàmm loolu. ça c' est extrêmement important merci beaucoup président léegi nag ñu euh, aborder yeneen questions yi. Mm-hmm. ñu ñëw ci li xew ci sous région bi mu AES. Mm-hmm. Euh, alliance de des états du Sahel. Mm-hmm. ñu bari ba muy ba muy tàmbali dañu doon dañu doon xaar euh, adhésion wu Sénégal mais président bi mu demee Mali dégg nañ discours ba mu fa tenir naka nga gisee déjà génn bi génn ñoom ci CEDEAO bi ak position bi ci Sénégal am. waaw xam nga euh, génn bi ñu génn CEDEAO leen rek moo ko def. Hmm. fi nga xam ne ñaari mbir la lay génne benn. Hmm. Hmm. Euh,